loolu day dellu si ci fonk sunu diine fonk suñu taalibe fonk suñu diine suñu kem kàttan def ko muy suñu yitte ji jiitu yitte yépp fonk suñu taalibe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 te yàlla rek tax nga di ko def loolu kon noor loolu rek fi nekk góor góorgóorlu ci suñu diine fonk suñu diine nan góorgóorlu ci fonk suñu taalibe suñu kem kàttan di sant nag gannaaw bu sant suñu borom mu nu sëriñ bi sant sëriñ bi mi nu fàggul suñu lépp xalal nu yoon wi xamal nu ko kon naa ba nu santee suñu borom mi nu boole sëriñ bi noo ngi sant sëriñ bi ci wàllu yëpp ci lépp birig bi ci teegal nag daja dolli ko nag di sotti rek mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi ñu ngi sant ñëpp xam nañ ni yitti ji yitti ji jenn rek la muy ni ñu taxawoo suñu diine rafetale ko suñu taalibe xam na na ci loolu rek lañ nekk nañ góorgóorlu bu baax ñoo ngi sant ñëpp ci rawatina jamono yi nu weesu ndax eh, xew-xew yi am na ci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 gën a nekk ci loolu rek sax ca dàkk sunu kem kàttan teel rek tax mu du ko def ak njukkaliku Sëriñ Tuubaa eh, mu ngi leen koy liggéeyale jërë ngeen jëf يس كل لبيب أنت كنسي دنيا وأخرى وجاهي أنت هسي يا هس كل لبيبي يا كتابا به أناجي مجيبا ليقود الذي يسر نجيبا